jàng rek. foo jàngee foo ko loolu. ci internet bi de. nga ni. waaw. kon yow internet doo seetaan ay TikTok. question bi ñu doon yooyu. réponse baa ngi. moom seex ay kii nii TikTok moom. njëriñu internet amul njëriñ moom loolu. du la yee dara. <laughs> très bien. day yow kon doo def TikTok di fecc yooyu di way ay wayu gars yi di fecc. déet yi mu ngi ci Arduino yi. Arduino nga xam te ci internet nga ko xamee. Ah. donc y a bon sur internet. Ah qu'est-ce qu'on disait la dernière fois. internet ndax am na njëriñ wala amul njëriñ. mais c'est vrai. Abdoulaye li nga ne kii mooy. l'exemple est là. l'exemple est booy bi Arduino man mosuma ko xam ma luy. Arduino beneen numéro mu indil ñu réponse yàlla yàlla yàlla am na àtte. seize en plus. léegi mooy gone japon yi nga doon wone sànq ñu ngi ni Sénégal am nañ suñuy gone. xam nga Arduino machine programmation la bu compliqué buy ànd ak ay langage programmation. boo xamante ni yow yaay coré affaire ñii buñ ñu demee ba maîtriser ko ça veut dire que voilà y a du très très bon. li tax nga war a li tax mercredi bi yow yaa war a jox rek. su ma ko wonoon Arnaud léegi nga ne booy nu ngeen def ba xam lii. dañu attends man euh, Matar defal ma focus fii waaye booy bi fi mu fëq nii pour. génnee fi affaire baafu li. waaw jërëjëf affaire bu la fëq. non fii daf fa jam ay paa xam naa ay wala kiir la carton bi la jël jël booy lii nan nga ko defee xoolal télé bi. modéliser carton nga naan fëq. ah, ah <laughs> léegi ah lii foofu la bi di génne. waaw ah. maanaam nga bu fekkoon inch bi mooy cadre haut-parleur léegi bu fekkee tout daa fa fermé volume bi du mën génn normal. am na. et puis léegi dugg na ci son dugg na ci enceinte. waaw ndeysaan. te loolu yëpp yaa ngi koy xamee ci. am ci xam internet. Mhm. li yëpp internet nga ko jàngee. waaw yenn yi yenn yenn yi nag damay toog moom di xalaat moom. di xalaat naka nga ko war a defee. waaw naka nga ko mën a modéliser. waaw léegi hmm. ñu continuer léegi nga ni machine bi lan lay def moom. Pape Sidi ticket yi di génn boo dugalee pièce. da lay génnal ticket. ticket boobu di lang. voilà léegi xoolal. wàcceel ma wàcceel euh, wàcceel ma momentanément rek wala mën nga ko indi nii tegal ma ko ci yeneen kii bi. booy son waaw kan moo naan kaneetam ba mu jeex. gaaw na de. <laughs> na ah, sa mbës a ngi nii alaaji eh, eh, lii du sa ah, ah, sa mbës daa ñëw daaj déet maa mag bi bu mag bi <laughs> alaaji Papa Omar salaamaaleykum nga door baax na léegi la ko doon naanee sax machine bi nii la mel <laughs> dafa am luy lang nii lu mel ne ticket mhm. léegi fii nga def fi benn genre tour comme fi ñuy jëndee kafe machine kafe ah. de maa ngi lancé appel bi fi installé <laughs> day sàcc sama xaalis rek wër na yàlla loolu métti na ma trop <laughs> léegi machine bi naka ngay def ba mu génnee ticket xaalis soo dugale xaalis machine bi génne la tig ah amul ñaata laay dugal. fukki dërëm a ngi nii rek. fukki dërëm. Ah, andi fukki dërëm mbokki Sénégal. gone gi nee na boo dugalee fukki dërëm fii. Uh-huh. carton gii mu defar fii génneel la ticket yow yaa wax loolu. waaw. <laughs> kii moo gën a avancé suñu gab yi sax parce que wax ngeen. borom <laughs> oh, du loolu de xoolal boobu téléphone bi mu yor. téléphone bi di xuur dabb na noo ko yaakaaree rek xuure dabb na. ba pare téléphone bi lay commandé machine bi waaw. ah. yow eh. may mun a yow sonal nga ma fu may dem nga naa moom jàddal gauche jàddal droite tey nga dikk ci télé bi di wax ak man. Oh, dëgg <laughs> léegi su ma dugalee fii dama am fu may bës. moom machine bu activé rek boo dugalee xaalis bi automatiquement feuille bi day génn. léegi su ma dugalee cent franc dina ma delloo fukki dërëm. déedéet fukki dërëm kese programme wu ma fukki dërëm kese. su ma te cent franc sax xajul fii gis na longueur boobu pour pas cent franc xajul. dëgg cent franc xaaral ma essayé booy man dama lay topp ba mu sës yow <laughs> cent mu ngi nii. Ah. booy ma daal yaa jëla. Ah. maa ngi gis. cent franc waa du dugg de. wuñ ko. cent franc bi du dugg. yéen suma forcé du dugg. taaj ji dama laa bëggoon a kiiwloo xam nga man damaa mun tegaate sok léegi su ma dugalee fukki dërëm bi daf may génneel ticket. waaw. maanaam ticket teer bi dangay ñëw rek nga dugal sax xaalis. mu génn waaw. du booy jënd ticket da ngay <laughs> je prends les 50 francs comme vous le voyez comme ça à l'écran, je vais les mettre dans la machine et je rappelle que la machine c'est en carton. Carton là. lii nga gis ñu bënn nii paakaa ko bënn paaka mburu yooyu <laughs> paaka mburu nga <laughs> c'est beaucoup plus compliqué que je pensais. allez on y va on y va pour la machine un deux trois. kenn yoraatul fukki dërëm. <laughs> ah fukki dërëm yaa ngi nii fukki dërëm yaa ngi noonu. fukki dërëm bi fii nga koy génne. xanaa fi après boo paree da nga koy utal sellir. <laughs> gis nga machine café 2S yi bu ñu amuloon sellir. kon riis na. ah bon. <laughs> damay dugal sama saafara pare génne ko. xoolal daal fukki dërëm bi ko jox. daa ba lii may ma ko ma dugal ko si machine café parce que machine café bi loolu du fukki du dugg xaju ci lii la la moom moom war na cee xaj de ndax ñoom ñaar dañoo xaw a tolloo tuuti lii du xaalisu xaw ma kan baal daba maan uguya uguya baal la de su ma dugalee rek dafa may génne waatal ticket booy tu avais vu xaaral ma xotti bi ba mu leer ne xotti naa ko léegi xotti naa ticket bi jeex na. joxal Pape Oumar ticket. xool ba xam dina ko génne normal léegi xot am Pape Oumar sa ticket mu ngi nii. merci beaucoup bu may ñibbi tey moom laay fayee moom laay iskate <laughs> moom laay ñëw teg nii defe naa tamadu la ëppi buum bi <laughs> un deux trois daa bañ de daa bañ est que du man maa dagg ay affaire yooyu parfois nag porte fii fu fukki dërëm di dugg yenn saa yi nag laam yi ñoo xaw a moo tax voilà bi moom génn na ma bi moom génn na nijaay booy bi machine la defar boo xam ne da ngay dugal xaalis mu génneel la kii ticket ticket dugalal ma xool est xañ na ugu yi est-ce que dina dugg ah, génnaat na <laughs> ugu yi ba dugg na ah. lii <laughs> sa ugu yi léegi sa bultuf bi moom lu mu ciy jariñ machine bi pour machine bi wax a yow mais boo bëggee teg son pour dalal jàmm yaa ngi am nga mun nga teg son si bultuf ah. tegal ma xool <laughs> affaire yooyu noonu dalal jàmm ci hôpital dalal jàmm boo bëggee jënd sa ticket dugalal fii sa xaalis waaw waaw wax nga dëgg comme ça doo rang sa malade du yàgg <laughs> pourtant sa kii de idée la di aw ah oh. mën nga wax ne billet cinq cent la ticket cinq la sax boo xoolee mu kaasa pare yëpp ticket bi cinq la da ngay ñëw dugal cinq cent mu génn la position bi nga jël et après nga dem raawi donc day tax af process bi gën a gaaw dalal jàmm ci hôpital

Ça sert en même temps de divertissement. Quoi. Il s'appelle Tcherno Omar Bari. Il a 16 ans. Il vient de Niag Lagos. jàngul école. lim fu def fii yëpp. si internet la ko jàngee. internet. jàng naa école sax mais classe C2 laa bàyyi. C2 ah. la bàyyi ne. macha Pause. Je suis euh, épaté, je suis ébloui, je suis choqué en même temps. Tu tombes des nues. Waouh. C'est fou cette intelligence qui vient de toi. Ah ouais, c'est fort en plus. Yal na yàlla defal la jàmm. Amiin. On regarde l'autre machine, qu'est-ce que tu as créé pour l'autre machine? Ay machine à soda. Soda. Ah. Soda men, soda Mama Fall wala soda. Ah soda, ah soda. soda comme comme lii par exemple boisson quoi par exemple naan ko ba mu jeex jël sa mbos nga sotti peut soda ah. machine kaana yi rek Pape Omar de barki borom jaaree balaa émission bay deex di ngeen dégg Pape Sidi wàccal Pape Omar wala Pape Omar wàccal Pape Sidi <laughs> sama boisson bi lay jéem a lewal ni waaw moom nu mu def ba ba jàllu bële <laughs> eh, eh, eh, léegi ku ko naan on débranche l'autre machine on place l'autre machine machine à